jéema jóg way fi ngeen jilin seewey ñoo ma jommalul boppam soxna jaara soxna jaara ànd nañu ci lim lu toll ci fukk ak ñaant sëriñ Xaadim Fay Naxju sëriñ Sayar Kan sëriñ Daam Jaane sëriñ Ñang sëriñ Moodu Booy sëriñ Baara Géy sëriñ Mahmuda Ñang ibnul Xamis sëriñ Fallu Kan sëriñ Xaadim Fall ibnul Amin sëriñ Seexuna Ñang Karbala sëriñ Seexuna Silla Xiiwal sëriñ Asan Jaañ sëriñ Abdul Ahad Ndong sëriñ Seex Silla Taalib sëriñ Mbay Caam kon ñooñu mooy ñu nu jota war a siqal jataay bi yaakaar naa bu fekkee bàyyiwuma kenn walla kenn ñëw sama ginnaaw ñooñu lañ jota bëgg a jataay bi incha allah jataay bi itam nii lañ ko bëgg a nosee bokki waykat yi la ci jiitu mooy kenn ku nekk euh, gaaral genn xasida genn xasida ndax kenn ku ne ci ñoom li mu jot a tiim rek bu ko bëgg na jàllale fii ba quatre heures wala cinq heures mën na fee bañ a jaax kon kenn ku nekk tànn loo la genn xasida ci soxna jaara nga gaaral ko muy benn tomb ci ni ñu fas yéenee noose jataay bi ñaareel bi mooy mu tënku te bañ a xaabaabal ndax léeg-léeg xasida itam xaabaabal lool ba man laa man laa jël ci waxtu lu bari lu jéggi dayoo loolu it nu ngi sàkku ci mboolem bindkat yi képp ku taxaw xasida gi tënku te bañ a xaabaabal ñetteel bi mooy duñ ci sàkk commentaire ci njëlbeen gi ak ci mujj gi bu doon jataay bu yaatu la xasida gu jaax danañu commentaire ca baxaru ba commentaire ca arud ba commentaire ca la ca balaaxa moom la ca bayaan moom ak la ca aju lépp ci ay mustaxsanaat waaye bu ñu defee loolu balaa ñaar wala ñett di jàll danga dégg jumaa ji nodd ma waral commentaire du am ci ak njëlbeen ko mujj dañuy tegale rek xasida yi bu ko nit ñi déggee dana doy sëkk ndax tagg la maddax la bu ko nit ñi déggee rek dana doy sëkk walis de ko commentaire kon bu kenn commentaire ñetteel bi mooy xasida ak nuyoo ak boog tàggatoo bu mu ci am kenn ku ne xasida gi nga déclaré ñu bind ko boo ñëwee mu baasharatan jonjol ak xasida gi ndax xasida ak nuyoo xasida rek moo tax duñ sàkku nuyoo ci ak xasida door a wax ak xasida déedéet kenn ku ne genn xasida quatorze personnes kenn ku ne waree jàllale xasida bu ku ne nuyoo rek dana jéggi dayoo dana doy kéemtaan moo waral noonu lañ no sa jataay bi charte yooyu ñoo ngi sàkku ñëpp tënku ci ni ñu ko waxee nag léegi mooy jataay bi defoon nañ ko daaw jéeg defoon nañ ko daaw ñoo ngi koy fas yéene ànd ak yéen ren sëriñ Isaaxa ñaan na nee na ñëpp toog déglu ko kon fas ci yéene tab bi maa ngi feggoo itam ak sëriñ Fallou kan sama xarit sama wolore fa tabarakallahu euh, moo may dimbale ci woo gi nuy woo gaañi kenn par kenn kenn ku nekk dana la woo ci wenn bayit rek nga ñëw tàbbi ci sa xasida mubasharatan boo tegee micro bi keneen dal di jël fasaasi ku jàng sa xasida nag bu ñett ñëpp matee nañ dal di jóg ñu woo ñeneen ñett ñu dal di ñëw toog noonu lañ ko nosee itam incha allahu taala ku jàng da ngay toog ba ka ca des topp ca ka ca des topp ca bu ñetti ñooñ matee ñu dem fee toog ñeneen ñetti ñëw kon noonu lañ ko nosee incha allahu taala nuy ñaan ñëpp sàmmante ak charte yooyu ñëpp sàmmante ak waxtu wi ak toogaayu kilifa yi ak ñi bëgg yawiku te seen waxtu yawiku jot sëkk te mënuñoo ñàkk a jàllale xasida door a yawiku kon nag euh, sëriñ Fallu Kan ñu bàyyi la nga nuyoo ubbi te ñu daal di woo sëriñ xaadim fay ju moom xasidaam ci njuuj njaaj la ko jëmee baxru bi ñuy tudde njuuj njaaj muy baxru boo xam ne sëñ Moussa moo ko fi andi woon incha allahu taala kon man ngaa daal di nuyoo rek ñu jox sëriñ xaadim fay gannaawam sëriñ sayar kan gannaawam sëñ daam jaane sëñ sayar kan ci xafif ci lay way sëriñ daam jaane ci mujj tas lay way nuy sàkku képp ku jët micro bi nga def mubasharatan directement ci sa xasida jàng ko ndax ñeneen mën a def noonu loolu la ñu sàkku jërë jëf noo ngi jéggulu bokk yi ak toogaay bu yàgg baax a baax waaw ahousubillahi min sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ci lay jëkke man nuyu naa ñi fi teew ne man ak yéen far asalaamualeykum ci lay jëkke man nuyu naa ñi fi teew ne man ak yéen a far chers messieurs et mesdames l'enseignant et notre cher invité je bon turandoo soxna jaara yi lay jëkke man nuyu leen kenn par kenn ngir du nu mer nuyu naa sama jëwrin ji Ahmadou Baas nuyu waykat yi ñëw fi ne ñooy sama mbër nuyu naa waxambaane yi ak njegemaar nuyu jeeg demi paanu yu paa yu meer nuyu naa caméraman yi ak technicien yile ak rajo yi télé yii di nu dar nuyu naa caméraman yi ak technicien yile ak rajo yi télé yii di nu dar fàllu mooy sama tur sant kan ci lu wér photo mooy sama métier dana ko wagar taalifit dama ko bëgg man ko bu wér fu ma toogee di way ko fa woo sawar xale la waaye nag du ma célibataire samp naa kër itam yore benn jabar jànguma aw wayin lu ma way dana jub ku ko peese du damm araf du ca far fu ma nee cas xalim xaraf yépp taxaw naa ma bind ma yow ma waral ma sawar sëñ Moussa Ka di saa royukaay bi ma am baxru yet muqtadab moo di man bi ma far abdoulaat ndong itam du fàtte tuuram moo ma teete ci way yal na mucc ci lor yëkk day ñime njam ñime njam mën a jam man dama ñime njam mën a jam te sawar bisu maam jaara bii dana mel ni kilem lem daanu way soxna sii dafay lu ko jar danu tànn kàngam yi fi géeju ci way indi leen fi ngir ganu tas fi tasar ku ci dikk ba way nga ne mooy ki fi man waxtu wee xam ne kon dema lim seeni tur sa nuyoo bi kon sa nuyoo bi li kon ngalabul ko guddal mën na gàtt te saf mel ne kuy fayi bor ama baas ana moo di kiy njëkk a way woo ko léegi mu ñëw fi le coow li ne kor jërëjëf sëriñ Fallou Kane ci nuyoo bu am solo boobu ab nuyoo lañuy ñuy ci ab néeg dafa mel ni sax bokk yi tënk nañu aw kayit wax ne nihayatul barnamij trois heures et demi te ñoo ngi ci deux heures et kon mel na ni benn une heure la waxtu wi loon kon sëñ Fallou mën ngaa woo ki nuy wax sëriñ Xaadim Fay ju di waykat wu ràññiku di way ci baxru njuuj njaaj mu jël kàddu gi incha allahu taala bismillaahi ma war naaru góoru njuuj njaaj ràmbalaat wuti saalum di bàkku tey maaj bamba fay fu mu féeteeti mën na jóg waaj àddoo mu def ma ab daaj bamba fay fu mu féeteeti mën na jóg waaj ngir ne moom fu mu àddoo mu def ma ab daaj bismillah bismillahi ma war naaru góoru njuuj njaaj ràmbalaat wuti saalum di bàkku tey maaj bismillahi ma war naaru góoru njuuj njaaj ràmbalaat wuti saalum di bàkku tey maaj kuy jigéen jegesil tey ma tagg seen njiit jii jigéen fu mu taa jii jigéen fu mu daagoo ca péy ba kuy jigéen jegesil tey ma tagg seen njiit jii jigéen fu mu daagoo ca pee ba góor tiit tey ma sulli jaroolem ci réewi soodaan ay ndamam dafa gàccaal rijaali diiwaan soxna jaara sa tool bii nga bay dama yéem fam nga sàq yi feesal ba gor ñi faf luum yittalaam bari jom gor la am dalib xaas ndottalaay li ma yéem raw nga doo fi am maas at ya néew na ci at ya néew na ci saahir te jëf ja rëy lool bay nga sas wu ne ŋàllit ba ñuy ba ñoo ngi góob mbool at ya néew na ci saahir te lool bay nga sas wu ne ba ngool cooli cooli yawa yaa ne cas la doon jaay fay njëgam ne ko dankum indil ko say gaay moo waral bawal ak saalum ak kajoor siin ñoo ngi raam fi soroon mboor sigil ñu lay seen moo waral bawal ak saalum ak kajoor siin ñoo ngi raam fi soroon mbaar sigil ñu lay seen tey ma joobi jikkoom ndaxte ngeen roy ci moom yàlla mooy ki ko jagleel ba mësta jëf juum mat ga moo waraloon mësta xëy di fay faat waxtu fu masa jot jóg na julli xaat-xaat tab gu rëy ga fa moom raw na waame neel kaar mës na jëf lu ko gàccaal kilee di jàmbaar fonk diine ba tax mës na tooñ boroomam kum waxal nga ne ëskay du may soxna jaara rëyul siisuloon xañaanul moo waral li mu am wal ba àgg biir mbul yiw na yaatu yewén yewu yam ca néegam géer la gor la di gar yiw na yaatu yewén yewu yam ca néegam géer la gor la di gar gàlliwul ci xeetam yiw na yaatu yeween yewu yam ca néegam géer la gor la di gar gàlliwul ca xeetam teggi nay la mu fab def ko gaal ga muy laaw teer tefes ga ñu naa kersa cir na waa mbaaw du jànnee te du boddee du daw ku koy laaj weg na mag yére moo ndaw di jëf ker ak naaj borom kersa la woon yar ba lay dëgërloo tooñ itam lu mu tàttar du fab di delloo nattu it lu mu rëy rëy mu muñ ne inna lil ilaahi wa inna gëm naa nattu ilaahi gëm naa jub nga jekk nga jag jàggi noon yi tër daan loo waxit ñu ne maalum bi isni rahmaan yow sa yéena la buur fay ba jox la maam daam xëy ma it ba mu sotteeloon borom saam yow sa yéene la fay yow sa yéene la buur fay ba jox la maam daam xëy ma it ba mu sotteeloon borom saam gor ña yow ca njël yow nga jànqaraw leen baarakal la busoo mas ga far nga séen leen ñépp a mos ci sa may yii jigéen aku góor xëy fi yow di la sonnal di xanju sa mboor taar bu réy bi nga sàlloo sewal nga lay laa jéeji yiw gi nga yor géeju yiw gi nga yor dus ya wal na bay laa yaari wet yi la gaw ñépp a set weles maam mbusoo bee ngi le ngi ñoo di say maam banu mam ma xaram leer ga moo la sol xaal ngay bëngeer bana cas mbuuti kun di sàbbaal aalimun nga di xaafis bu dee fi war maal kàng foore nga maam yaay boroomi lax waal fortuwoo li nga xam yaa ko jëf ñu fay laa jox nga jekk nga jak moo waral ma way laa baatinam ba mu yor téewutoon mu def jaam buy jëfal sëriñam daa woyof lu tey raam ndam la buur digga woon yaa ko saytu def kaam yaa fi gën ku ña doom tin ñu def ñu sa mbaam diir nga njong la ba jam diir nga njong la ba jam jàggi noon ji diir nga njong la ba jam ñàggi ñàg ba raw leen kenn tëkkaalewul ak jeegi faas raw nga leen diir nga jong diir nga jong la ba ba jam ñàggi ñàg ba raw leen kenn tëkkaalewu laag jéegi faas raw nga leen sa di góor yi nga am raw na góor yi day maan muntaxaab nu basiir ab ajam la buy daan ndab li neex na te yaa waaju xiif ñëwal gaaw cam su mos ci bu faatoo naayimi lay naaw sukku nan fi sukku nan di raamal ba ñàkk ay woom ngir sa doo jox lëf lu jéggi am koom yaay wurus ku la moy per la maa yaay wurus ku la mooy ab përam la xam na maa la nas caqi baat moo taxit gërëm naa mam astawaaloo jaajëfal la war naa lim gi yaay ki ko neem ku mos ne neex na kon jigéen ñi la roy leen ci soxna jaara ndaxte ngeen ami doom yi ba woo fadaara soxna jaara busoo soxna jaara busoo boo defoon ñi jéggi kon ëllëg bu ñu faatoo alak ni naa ji soxna jaar sa ndam yi xëjul ci aw fooy teg ca man mënuma wa yembar di am tooy kon ma xat mu ta ñaan sëy ngërëm nga sol ma may ma bàyyi rek akum koom wérit nga jox ma salaatan wa man na dal yonen ba wal ali wa sax beeke sayxu bamba wasalaamu aleykum xaadim fay jërëjëf man nga dellu toogaat ax ma wax ma ci ñii kan ci laa di woowaat jërëjëf euh, Serigne Khadim Faye Ndiou macha allah wa jazakallahu xayran dañuy jàll directement ci Serigne Sayer moom mu ngi way soxna jaara ci bahrul xafiif bismillah aouzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim jërëjëf soxna jaara soxna su baax nga ku la way way ku farlu jaaratulaahi jërëjëf soxna jaara soxna su baax nga ku la way way ku farlu jaaratulaahi ma jugaat man sa yar xalaat sama xel mii dafa am lum xalaat ci jaaratulaahi dogu gaa tax mu xas ni man fi ma jëm nii dogu gaa tax mu xas ni man fi ma jëm nii bu yoneen jeexuloon ma jur ko billaahi jërëjëf soxna jaara soxna su yiw nga ñi la xam ñoo le tudde jaaratulaahi jërëjëf soxna jaara soxna su yiw nga ñi la xam ñoo la tudde jaaratulaahi bëgg yàlla waral nga bàyyi fi lépp di ko kennal ba xëy di jaaratulaahi nelawoo yaa fu soo ko takku nga am jom ko lewet yaatu raw nga jaaratulaahi ku la roy am lu rëy rëyoo li nga am nii danga ko wut ba am ko jaaratulaahi ku ni mel dootu am ni jëf ji mu jëf nii li nu may jàmm moom la jaaratulaahi budutoon soxna jaara dunta la toog fii budutoon soxna jaara dunta fii bëgg naa lool ko bëgg jaaratulaahi ku la woy am lu rëy njariñ nga lu yaatu danu la war di sant jaaratulaahi ku la santul iñaana dugg ca xol ba ku la soppal lu baax ku la soppal du baax danga bëgg laahi ñi la xam nee ñu yow mësoo mere kenn te mësoo wax ñu ñaaw lu jaaratu laahi ñi la xam nee ñu yow danga dëkke woon koor ku la tooñ sax nga baal ko jaaratu ñi la xam nee ñu bàyyi woon nga fi duniyaa dëkk ci mbaax ba nekk jaaratu laahi joxe nag soxna si mënoon na ci ñépp du la jox wax ko soxna jaaratu laahi lu mu xam yit du siiw ne denc na lam xam ku ragal ku ragal yàlla dëgg jaaratullaahi ku bëggoon alxuraan la doy na ko wettal la mu daan toog lu néew la jaaratullaahi bu guddee nag bu guddee nag mu jaadi jaay ne la wam ya bu guddee nag mu daadi jaay ne la wam ya jënde kook topp yàlla jaaratullaahi mën a muñ sàmm soxna si akamaandu doxuloo kenn soxna jaaratullaahi mën a muñ sàmm soxna si akamaandu doxuloo kenn soxna jaaratullaahi bu la neexee nga bàkk soxna si raw nga li nu am jar na sant jaaratullaahi bu dutoon soxna jaara diine ji raaf na ki ko dekkal sa doom la jaaratullaahi bu dutoon soxna jaara dun yori daara li nu may jàmm yow la jaaratullaahi bu dutoon soxna jaara soxna yi suufe ba ci ñun góor ñi soxna jaaratulaahi bu dutoon soxna jaara kenn du fi tedd li nu am lépp yow la jaaratulaahi bu dutoon soxna jaara kenn du fi tedd li nu am lépp yow la jaaratulaahi bu dutoon soxna jaara sëñ bi nu àndal du fi ñëw sant leen ko jaaratulaahi da danga jug xëy ca njël jigéen nga ju man góor li ma wóor moo di raw nga jaaratulaahi andi nga yiw fi nun indil nga nu xéewal njariñul nen nga soxna jaaratulaahi waruwoo jàmbatoo fi tiis yi la daan dal danga koy nëbb soxna jaaratulaahi jërëjëf soxna jaara sant la daa war ku la santul goree di jaaratulaahi taxawal yow sa yar te julli ci yonnen te nga ñaanal ko soxna jaaratulaahi na ko buur yàlla fay te ful li mu koy fay nanu am wér ci barke jaaratullaahi mucc ak ay xewal na ñeel sunu yónneen te mu ñeel sëñ bi feeñ ci jaaratullaahi salli rabbin ala alxabibi wa alin maa sax beeg sëriñ ba bëgg balaahi asalaamaaleykum jërëjëf kan sa yar ci way wi nga gaaral na nga dellooti way nga jaaratullaahi ma ne gees baaste naa ko kon ku ci topp danga koy wax danga may wax turam ma woo ko lillaahi jërëjëf sëriñ Saar Kan sëriñ ba bëgg sëriñ bu bëgg ba laahi jërëjëf fa tabarakallahu kon ñu jàll ci sëriñ daam jaane moom mu ngi way soxna jaare ci baxru bu ñuy tuddee mujj tas mujju tas mujju tas bismillah waaw bismillahi irrahmani irrahim injussati la xarakaatu xam ngeen àndaar ji ma nattee dogub ngërëm bi ma sóob ngir walal ko sun maam jaara ki tax ñu regg ci diine sun xol yi fees ki ngëm-ngëm njukkeel ko war ku fi dis gor maami basir ak baara ki tax ñu regg ci diine suñ xol yi fees ak ngëm-ngëm njukkeel ko war ku fi dis gormaami basir ak baara yaa xuste manding ma jàll kenn gungewul fa nga jaari ku jaar fa taqati rib ban sa dooma dem sarsaara yaa xàll yoon wi nu jaari te dig jamuñ jaaraama sa teeni ndam dootu fi dey ngir yaa tax ñu am ay daara yaa xuste yoon yaa xàll yoon wi ñu jaar yi tëddeeg jamun jaaraama sa teeni ndam yu du dee ngir yaa tax ñu am ay daara yaa bay ci diine lu suural mbaakol jolof ségu jigéen ya boo yal nan yow nga bay ba dem gànnaara yaaram mu penkoo ki sowwu sa dooma jot suñu ruu yi farcet do taaj farcet do njub def fu jaare ay abraara say leera niitali bii daan defal nga ñooñ soodaani mbulak sukkeer ak i làmbaay yaa sippi seen aw zaara sa rakka yaay li waral fii jumaa yi mel ni ki ay waañ foo romb ñuy liqaam gee di nodd ak ay kàbbaara sa fonk xuraan gaa tax ndaw ñépp di kaang fóore sa mbàndi xam-xam yaa duy dënni wolof yaag naara sa xàbb yaa xëy laabal suñ dandi xol ba mu sell sa dooma fóor suñu tër yi cuubeenu ay anwaara safar lu gaay lu nu may sag sutura si yaa ñu ko sàngee teraa nga texe barke nga jox ñu cay angaara lu gaay may sag sutura si yaa ñu ko sangee teraa nga yiw texe barke nga jox ñu cay angaara yaa xëy ca naajoo ba kër ñëw nga jox ko xeet wi ñu seerloo sa coono ba indi noflaay bi tax ñu war ciy kaara sa may ma nangu na sa may ma nangu na yaa jëm la daan yépp doon jiiri yaa suur lu tax ba nu bàyyi laaxa di sif daqaara yaa muñ yaa tax ñu mucc ci taw te dëkkay sato ak i building jaaraama yow bu sa baali boo seelu woon dun mbaara sa kem amul dootu fi am yaa dond maam maryaama yaa meññ sunu isa mii ñu sedd tax duñ xaara yaa wéeru wéetal yàlla gëm ab dogal niki imraan moo tax nga am muusa mii fi julli géej tisbaara muñ mar wu metti na haajar sa dooma bën na fi zamzam yaay mbambulaan bu sa gàcceel nga biiru wal abaara yaa muñ lu metti na haajar sa doom ji bën na fi zamzam yaay mbambulaan bu sa gàcceel nga bi ruwal an yaa gën soxna soxnaak taara yaay delluwaay ku la jéggi di roy keneen xelam maa des yaay ngir mu jub ku fi xeeñtu sa mboor ma raw fu jaara kon ñoo ngi ñaan ci sa su dégg gu waara yàlla nag nu dotti sa xiinu ngëneel yu rëy li nga làmboo barkeeg ngërëm dëkk baawaan ci tam ci dégg guwaara yaa rabbi salli wa sallim ala habibika ahmad kon Serigne Khadim Faye Serigne man ngeen dem toog te Serigne Ñang na dal ñëw Serigne Modou Boy Serigne Bara Gueye Serigne Ñang la ñu woo Serigne Fallou man nga woo Serigne Niang incha allah euh, munu noppee daal woo moom nag mu ngi. ma ñëw wax tifis lëf sutuut ci jikko axusu billahi min asheytaani irajim bismillahi irrahmaani irahim barke borom tuuba ma ñëw wax tifis lëf su tuut ci jikko yu maam xerawlooti ko ma ñëw wax tifis lëf su tuut ci jikko yu ko yëgën far balamboo yu kenn toggu ko mu ak maandu mooy toog lewet am sago mu booleeg sawar tey ku xër jàpp ko bu ràññeeku lool ci tabam baraw ceebo mbaawaame wuy dottiku di xaafis di xaalim bu xam tey jëfe te gor dogom gaa dogal doom ja tàggoo tukki gabong moo ki noonam te lëf jàpp ko dogoom gaa waral doom ja xëy daa di fés defub jant tim ñépp ñuy waral doom ja xaadim rasuul di kuutaayu yónneen ba far donn ko dogom ga dogoom gaa waral doom ja xaadim ko du nag lanuy jàng ku foxan axat nu naa kon sa doom leemu xëy wuutu ko ba ngay xas di jaayante bis bay dogu xam ak jëf nga laytaaye ngor ak jikko dëggal dëggu jub xocc sax ci ndigal ba xëy jàpp mboolem ngërëm làqu ko sigil daagu maam jaara lii doy na ndam sa ay jeex na say may dafay dottiku sa ndam lee ko wér kenn weddeetu ko samay yaa ngi wal fépp kenn waatu ko sa doom jaa ngi wat naa ne jurtee ko kemam faat na kenn dootu jub teg ji ko damul am nga ndam sox ba yaa tequ ko bajam mboole seen tuur ba yaa teg ji ko ba faf dambe mboolem lu dooni ji ko yaway gën ya làmboo mësoo soppiku ne yaa jëf lu tax tey ngërëm soppiku di sab cër ba koo joxtiwul làqu ko ne yaa jëf la tax tey ngërëm soppiku di sab cër ba koo joxtiwul làqu ko ngërëm daa tuxoo fépp ñëw dottiku fi sagron ku am kooti yaa séddu ko te barket bawoo fépp ñëw sottiku fi sagron ba loolaal nu barkeelu ko te xiiwal yitam ñëw na far bàyyi ko fa penkoo ki sowwoog fu daa dégg ko ba far xiiwal ak may yu xel dajti ko di wër mbàkke wet goo fi aw seeru ko tëddal nag nelaw sas wa maam bay nga ko ba far tëddal nag nelaw sas wa maam bay nga ko ba bay saw ñaraas kon la war jëf nga ko ku jëf rekk mu fay jënn jëf sànk ko te it moo ngi gis lépp lëf ump ko fabal lépp yaa jëf lu kenn jëfti ko sapay gàcce nga laa ma yelloo nga ko danga aw fa woy baax ya daa aw baraw ba far romb leen def lu xel dajti ko danga aw fa woy baax ya daa aw baraw ba far romb leen def lu xel dajti ko danga boole xam-xam bu wér ak jëfe li lee tax sa jëf seen kem sikku ko amoo sikk maam jaaro yaa gën ji ko dama sob ne lii dof ya sax xam na ko ngërëm laa la ñaan ngal maam may nu ko te toftal ca barkeeg la gën xawma ko te fàggul sa sët bi te dollil nu ko sëriñ muntaxaa fan wa wér gunge ko mu sax fii banaal yépp xas mu sax fii banaal yépp mu sax fii banaal yépp xëy sottiku mu naalaat yeneen naal nga far dolli ko mu sax fii banaal yépp xëy sottiku mu naalaat yeneen naal nga far dolli ko lu koy xaar faral xaddi aaral nu ko ci mboolem wetam yépp far làqu ko ci barkeeg sa doom barke dollil nu ko sëñ Muntaxa fan wi féqal nu ko ci barkeb sa doom barke dollil nu ko ci sëñ Muntaxa fan wi feqal nu ko amin barke maam jaara maam dégg ko sa sët bii sunu ñaan ci moom nangu ko wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëjëf sëñ Fallou maam dégg ko xam naa maam dégg na ko kon incha allah ñu tabbi kooku moo doon Serigne Niang ñu tabbi mubasharatan ànd ak euh, Serigne Modou Boy moom mu ngi way soxna jaara ci baxru tawil sëñ Modou Boy loo wax soxna jaara ci baxaru tawil nausu billahi fi sirrin wa fi alanin min charri iblisa xaysu nqadda aw rakada badatu bi bismillahi tey jël ak kayit tafasina waay nag maami sañ baara ay bayit kuréere ko déglul tuuti inchaa rabbuna ma ñëw wax kan nga xam nag ne day ku mat ku siiw lool te gàttoon tànk kéemaan a ngoog gu rëy xetu mbax su bonnee day tasaaroo ci gépp wet dundam gépp da ko jeexal ci jaamoo ko jëf ndigal te sax nag ci sellal jëf ya sàlloo muñ ak lewet ku am fulla am yit fayda def farlu muy mbiram te def na kitaabullahi quraan mu dib xarit ragal yàlla ràññee lool sawar sàmm ay cëram yéwén yaatu eskay doon ku rëy at rafet njortu sallit yéene am kersa fonk ngor amuk takku am pasteef xelam set xolam rafet woyof lool ta xam-xammee ragal ŋàññi taxtiku fetal bëgg taggit taxtiku jéggi ab limit du ngistal du reetaan nit te biir ak bitee mayam du yokkat du jënnal yit la muy jëf ci bés bu set du bëgg ngir ku koy gottil moroomam xamul ku bon du jëf mbaa wax mukkit lu ñuy sikk koy xebet mu daa terle ànd ak tàlli ak mbégte neewi wax te daa def la war koot lépp ci yàlla ci kepp nit te ñaw lool te daan ñaw mës la wax kenn naa ko ñaw dadaa ñaaxe ñal ak njub du ñee nit ngirum poñet amul woon jotug waxtaan daa jekki woon këram te daa jëf ta koy sellal ba am lam fa doon mébét mosul des ginnaaw moom mukk bam ne bëreet la raw ña doon njaabakay cal ñépp te kenn dootu xëy ko jot amul ndànd kii moo tedd mooy ummu seyxina jigéen mas am kiim am jigéen dootu am ko yit ku fi làcce koo koy kan na déglooti rekk ma ñëw mbégum jàmm ñi saqum ndooli kii moo rawub nawet sagub diine jeg jullit ñi jàmbaar ji moo di ki yeesal bu wer islaam te nit ñépp teg ci bët kisul kaam bu tax ñoo fàtte xassaanu moo di kii ku ko mboolem gaa yu baax yépp moo ci sut gabon ba feleg maa yomba xam nañ ko ci jëfam ku ne xam ko ku ne xam ko ciw fit mbàkkit awtis du tax mu rët ku am kii de xam ngeen nag ne doonul ku daan nelaw ba yandoor te doonul woyun ku yaafus ci génn wet te gis nit sa xel daj soxna si ngir melom wiiw ci biir xarnu yombul lii de man tax na ma xonet ku góorgóorlu jéem koo roy de wallaahi raw sa kem te sot nag balaa am xeex dafay am ñu dor di sot ku tax nag ku koy woo day nangoo wax ca kaw li kaw ku dul dégg nag jër ku tax nag ku tax nag ku koy woo day nangoo wax ca kaw li kaw ku wér daal gis am ngir di jar nag ci yoon su xat ku fi soxna royuteef waa ngi roy mooy waral niroo ku naw nit de war koo roy su fekkee il est na bur yàlla fay ko yiwu te dolle ci koy ngërëm yu sax dàkk dottil ko taw mbég bu dul sewet te def nuy murit yuy gën di gëm sëñ bi daa iman ci barkib sëriñ tuuba musal not ci ay tawat salaatun min al mawla ala xayri mursalin ma al ali wal ashaabi ma shamsu qad badat هنا غاض بردي ثم أنهي قصيدتي وأبياتها حاء وكاف ديوانت ويت هنا غاض بردي ثم أنهي قصيدتي وأبياتها كاف وحاء ديوانت ويت asalaamualeykum wa rahmatullah médaille d'or bi laa lay ràng tey wax nga lii nga way da daa sedd ab xol ndax te daa neex ba noppi mat sëriñ Ahma Baas yaay jël tuddu tur ci gaa yi des ma dolleetu jël man fàllu woowaat ko ci bayit ah jërëjëf sëriñ Mouhamadou Boy xasida gi waxoon naa ne noo commentaire waaye tuwarkal la bëgguma fee nekk daal di commentaire waaye doy na war doy na war tubarkal la kon Serigne baara Gueye la ñuy jox Abo Mariam macha allah moom itam mu yëkkati kàddoom moom nag mu ngi way soxna jaare ci baxaru boo xam ne dafa bokk ci baxaru yu yees yi baxaru bu bu yees peq la miinuñu ko woon ci boxoor yi nu xamoon ci arab yi tubarkal la Allah أعوذ بالله السميع العليم min alsheytaani irrajimi wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-axyaari wa sallama tasliman kathira barke borom Tuuba mafaalatun faa'ilun mustaf'ilatu ku doonu lub mool maytu ko xóot na tey yaatu mafaalatun faa'ilun mustaf'ilatu ku doonu lub mool maytu ko xóot na te yaatu du dex du ab déeg géej la cam su ko sóob bu maytuwul diig mbaamu lab gaynde du buub bu ñépp nee miig man ma jóg tagg ca jaara nde maam géej maa di mool yem ci daara bu ñépp ne miig baara jóg tagg ca jaara nde maam da di géej maa di mool yem ma ci daara ci tudd buur bii laydale dale mu may ma ci way wi luy mbaax tey ma kañ kay ndayi daara daam ka semmali nguur cig defam lépp di yàlla te seetiwul buur mbay dagam sag la ci daara bu sooku lay soobu samboor tey fayi waxtu du jaara danga amul toor tuuraloo kenn mbañeel ya ko tuur la ay toor mbay mbañam baal nga ko jaara ci gil nga lislaam soxna si wallu nga diine sa fay bu doon maal dun ko lim ay miliyaara si gil lislaam soxna si wallu nga diine sa fay bu doon maal dun ko lim ay miliyaara nde yow labur teeñ yanda mbég ko fu dul fa Tuuba mooy ka tax bantali daara sëriñ bu mag ba tey la neex ñépp di seexu ba seexu dib xeex moom la woon moo sowe daara ka dem ndara géeñ dem Dakar dem wiiri wiiri demam gabon gee teewu ko dem sar te lambaraanaat teewu ko dellusi ci réew mi ku bañ sëriñ bii boo bul ubbi daara nde noon nde noon ya doon xeex seen pexe doon fayi daara mu jàggi leen ruur sànki leen samp fi daara ku sotti nan baa boo sante ko jaara nde moo ñu wan daam njokko njël mam bu so jaara fu jeeg di daagoo tey wanoop taara ki am am nga sol fa sag mbaax caqu yiiw ngay wane jaara fu gaa ya tëddee bay nelaw yaa nga ca der ya fajar nga daan buur tey balay root ndoxi daara te du la xëy tiim ngay nelaw kenn du la jiitu la nguur la góor di xëy gor ngay taxan andi ci daara fa gaa ya tëddee bay nelaw yaa nga ca der ya fajar nga daan buur tey balay root ndoxi daara te dun la xëy tiim ngay nelaw kenn du la jiitu lu góor di xëy gor ngay taxan andi ci daara dinaa fi lay woor teewu laa topp sëriñ ba danga gërëm loo cheikhi mor mam bu sa jaara ngërëm ya yaaraas yépp mam yàlla gërëm na yonen gërëm maam mor gërëm loo dese jaara lu dul di séddee koo jariñ koo cëral des na ko ñeexi sa doom a ngi doon jant tey wàcc nga jaara yësal nga say maas tiim nga leen raw nga ba faw sa doom amul maas déet ku ñuul mbaate di naara nga say maas tiim nga leen raw nga ba faw sa doom amul maas déet ku ñuul mbaate di naara ndemoo maneeg buur moo xameeg ngën gi yonen ba sëriñ bu mag daal ndey ju mag yaay cere jaara sëriñ bu mag daal ndey ju mag yaay cere jaara ndegam dangay géej naa yamal fii sama way wi dagaan la ci mbaax luy nga neel tëbb ma jaara te ndonge lii ñaan ak di way sant wi gëy la turam wa baara dib murit mbég ma di daara ma faalatun failun mustafilaatu bu gaa ne miig man ma jóg tagg ci jaar salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ak cant lay jël naa jàng-jàng jox ko fi baar tuddal keneen baas te mu ñëw way fi la jaar macha allah Serigne Bara Gueye kon mbokk yi toogoon mën nañoo jóg delluwaat ca seen place muy Serigne Ñang mi doon way ci mu taqaarab sëñ Mourou Bey Tawil ah, sëñ Mourou Booy ak Serigne Bara Gueye defe naa Eh, nit ñaa ngi doon bëgg nelaw waaye ñu ngi yeewu fii nu toll yaakaar naa jataay bi ñu ngi yeewu kon damay woo sëriñ Mahmoudou Ñang ibnul Xamis na ñëw sëriñ Xaadim Fall ibnul Amin na ñëw sëriñ Mbay Njaay na ñëw ñett ñooñ dañ gaaw dal di ñëw yéeg ci jataay bi man damay ragal ni jataay bi mbokk yi dañuy bëgg a gëmmentu xaaral ma am lu ma def benn maam fu ma génn fu sew rek ndax ñi doon nelaw ñëpp yeewu waaw yaakaar naa ko mënta ñàkk sëriñ mbay toggale toggale toggale waaw sëriñ mbay kontakal micro boobu ba xam waaw jege ko nañ leen diglu kooku ba xam mu yee nit ñi ba ñëpp yeewu sëriñ bay nit ñi daa mel ni dañuy nelaw te am na lu mu war a jàllale ci soxna jaara moom itam loolu mooy wolofal woo xam ne man maa ko jàllale woon daaw ci sama kàddu waaye naa ko ko bàyyee mu jàllale ko moo ma gën a sawar daa mel ni aousubillahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barkeb soxna jaara

am diine rafet melokaan yar say doom am jàmm sawar ta tooñ raw sab baale xer asamaan daawul tiit sa njàmbaara tax nga am daam yow yaa foor sang maandoo waral borom saam ak maam daam def jant yu fekk not ay buur ab xaayaan la yor tabu géej kuy taataan ay waameem fu nekk lay taa janjak joor bu nu sangoo nelaw ma ngay joor ay rakkaam bu nu mbooyaa ku ne seral naan yaa ngay woor nee nañ sax da defar maam ay wantaay bun mbooyaa nga jox dëkkandooy sëñ Mamor Jaara doo bo dee te yow añaanoo doo ŋaayoo yaa sotti rafet taxawaay yaa laa biir jagle ma def werekaan yaa xam daam yaay ngeen ji muridatu yaa mandig leer say jagle waral poroxaan ñëpp ay naan am nay teen ami taraawo ñuy bay am jàkkaak juma jabay riir am ay koom jeggi waa si jël tuqa kuur te passeport jeeg duutul jasuy jukki baa xëy ci teen bis xel li la nii ta ngay naan féppay lóor màggal yi réew daan ñëw nan daaw réew yi koy wari fafal naaw Espagne keer yaa si ngeen di ko daay def ci baag yaa tekkeen si xeet xeeti takkaay jox ma moor maam jaara yaa nu mat ndey yaa nu mat baay yaa mat maam yaa mat waay mutub sëriñ maam yaa mat géer say jagle waral ba Tuuba def am réew réew maa ngoogu sëy sëta toog not ay buur buur yàlla la may ci sun doom leer ak mbóot xutboo ngi ci biiri la daal dooley góor Mamor Jaara kuy wut mbaax doy nag mbaax ngir mbaaxiin wa nuy naw mbaax moo cay góor maam bambaay sëriñ bu doy waar muy kiimtaan moo jaaxal rijaali soodaan góoroo góor bun seete na muy defaw gaay doy naa yem sun aaloom bëkki garab ñee dooroy kuur ñee daanuy dëtëm ñuluk ñee toog ci am gaañooñ dañuy joxe jooye waaw leen góor jàppal nag na muy te keeb daay taatanta waame ngi tawaame fu mu gaar far bekkoor mam yàlla tawal wala ngaan ngooxi ngoox mbottay gor guddig yi dee taa muy kañ buur maam yàlla tawal wala ngaan ngooxi ngoox ba tey gor bu dég yi dee taa muy kañ buur diitil man di bàyyi sawu taas ndax man baas maa ñi tey gëriiti Muusaa njàmmey góor maam jaara yaa muñ ñàkk yow muñ ab muñ aw naaj say gànjar nga tekki woon jaay yokkeb soor yaa jël ngor ci saw turandoo jël teg mbaax moo gétteen jigéenu duniyaa set ciw toor yow siisoo bagaan ya taaj ak say bool ñoo reggal njabooti mamoor rëy ngëb sóor yaa wuute ak tey ji say muuraay xaarul sedd mbaate am njaal mbaaw tàngoo maam jaara yaa nampal ki ci duniyaa yow som soow moo nampal ñu gorom leer soowum leer maam jaara yaa nampal ki man ci duniyaa yow som soow moo nampal ñu ngor gorom leer soowum leer yaa cër ngor jigéen ñëwoon ndeer yaay xar baax waa Mbàkke fi tegite aas dun jël ndeer seetal tey li xew poroxaan ñëppay naan kaas yaa ngay wëndeelu tey foor fees tey fuur sunu yewoo ba soxna yay saaf ñee ngay xiim yor yoree ñu waasi jëntuur waasintoor tey baasee xew ak cere nguum démboo njaay dën lan daan si few ñaxet mbaa mbuumam nduur jën yaa ngi bu nuy tegab ceeb saf kuy naaf roof sompaat tëmbal jeeg coof ñuy féeri fiiriir ndar jaa ngi fa waa Poroxaan am nañ coof am sompaat ya fay jalaañoo ñëwut mbuur léeg-léeg ñu gontu res keek def ci réer pat pat pat ganaar ya ñuy saaf ñuy fiiriir xiwal yaa ngi ñuy gundaandaat njar ay meew wuuteeg fan yo ñuy añeb laax tey yiy wóor teeraas yaa ngi tey ami saas ak ay saal wuuteeg jànk yan xandem duur ak dóor dóor kaas yaa ngoogu bu nu resee añ yay teel wuuteeg fan yo ni xambey ndéef añ senkeer seetal démbu cam su daa waaj sol tergaal tey cuub yaa ngi ak mbaseeris ak jees neer yaay xaayaan bëggee jondaayaan daan taataan maam jaara yaa gàcceel nawet diggintaan gàcceel noor yàlla la fay fayaale sam réew ñëppay noos wax set waa ngi taw nawet tooy taw ab noor moom sellal ga muy toseb tool tax muy naat pex bennam ba guubi milliard barke woor maam ndokul damul ku am daam am ngaw kaañ yaa jam njong la ñëpp doon diir yaa rëy muur muur loo nan ku jëkk suu muur nee nan saay maam sooyo to sooyulaw gaay yaa man géer soxna jaara boo di yaayi muusa mbaa isaa mbaa yaasin mi gitti cib taar góoroo siisoo yow yeesu yunun yowoon yaay yaay xar baax ab nasaraan du jàggi say doom looloo wóor seetal nag ca lañ daam nag wuy naaw mes men deñ ba tey lañuy laaj moom fu mu teer gayndeeg ndar gawoon ca isra foofu dim kuuy nooy nepp ni am tulaabeer bàmbaay góor jëwul ne gisul kemam daam kawa ko suuf teewoon soxuñu laaj lu góor noor gis bay diir ay soldaar guddi meeteel ñoo dar daam seen xef rek xajul ci soldaar yooy góornóor ay soldaar yu guddi meeteel ñoo dar daam seen xef rek xajul ci soldaar yooy góornóor góornóor sax du góor amul nóor xamti leer Seex Bàmba di góor go am nóor mooy góornóor ba ñu génnee gasal ko am leeñ daal koy suul ba ñu delloo ñu fekk daam toog lay góornóor ba ñu génnee gasal ko am leeñ daal koy suul ba ñu delloo mu génn dem toog lay góornóor ba ñu diiree fetal ca kaw daam taf taf taf ba tamuy xool lay góornóor ba ñu yóbboo jëmmam ji wiir wiir teg ci il ba ñu delsee ñu fekk daam toog lay góor bul sàkkal sëriñ bi maas xam ngee muus yaptil gar te orduma soog ay xandeer moo sampal te jekk ab daaj kaaro kaar ñuulul kukku xeesuloon daam dafa xeereer niw ay lakk niwi naan lool buy reemuñ laajal rekk nu mu def daam mbaa yandoor niw ay wax dëndëm ba day riir buy sàbbaal sol turkem ba foo ko day suumuur ay neppe la daa fi suuf buy tooy ay karbat la daa fi dalloo waxtu noor ay neppe la daa fi dalloo suuf buy tooy ay karbat la daa fi dalloo waxtu noor jërëjëf nañ ko fittasu bu baax a baax a baax te jox ko addiya nag demal taxaw fee mbokk yi jox la addiya soxna jaara bëgg nañ la koo jox waaye bëgguñoo ronu caméra yi man ngaa jaare ne taxaw ñu jox la addiyee soxna jaara teral leen ko bu baax ngir jëmmi ki leen fi indi muy soxna jaara bu kenn denc dara kon sëñ mbay man ngaa dem toog foofee ndax ñu mën la faa fekk bokk yaa ngi la bëgg a jox waaye bëgg ñoo ronu caméraman yi jërëjëf fa tabarakallahu kon dañuy jàll ci euh, sëñ mahmoudan ñang ibnul xamis moom mu ngi way ci ramal bismillahi arrahmani arrahim faa'ilatun faa'ilatun faa'ilatun faa'ilatu ñal ko naaw par buuru nay fëx dëkke njàpp romb na say gox daldi dëngëñ poroxan ndax kafa wootey soxna jaara ñal ko naaw par buuru nay fëx dëkke njàpp romb na say gox daldi dëngëñ poroxan ndax kafa wootey soxna jaara lu mu xin xin baate muy taw du ma tee xeeñtu fa may aw sama yëg-yëg bi dama gaw di cofeel mam soxna jaara abu naa jom jënd aw fit ndaxte ñoñ àll duñuy nit dex gi lay xuus déggu may jat bëgg a màggal soxna jaara sunu maam boy ki nu fàkkal yoonu seex bamba ci ak dal tax na tey ñépp fu di sargal am nga ndam maam soxna jaara yaa ñu wan lamp bi dul fay yaa feral jaam ña seen ndey amulooy kem ku xëy mooy bu ko tuubul dëkki naara yaa defal yàlla dul dul dañ tax mu xëy jox la ku ñuy kañ réew mi tey ñépp a ngi dëngëñ wut ci saalum soxna jaara mosuloo mosuñoo bàyyi di jiinal sunu giir tay de géwal lan sunu ma duñu mas tay di feeñal li nga jëf maam soxna jaara mosuñoo bañ di la jiinal sunu giir tay de géwal lan suñu mas tay di fee li nga jëf maam soxna jaara mosu ñoo tay di wéetal yàlla sun buur bi la feeñal jamu yàllay joxe ak pal def nga kon buur soxna jaara garmi kër gor yi nga naatal naaju lislaam wi nga seet dal say manoore feeña luppal werokaanu soxna jaara jéegu woo bay jekki ci col jekk lol jekki amok dal soxna as kilo ki la nampal doomi daaray soxna jaara xej lool xir bari kersa xirtawoo yàlla di gor sa xeñtu woon boori sëriñ sa mooy dunduk maam soxna jaara masla nga yoo ak dëkkam masla yokkat cib sëriñam du ko ñuy jéppi ba koy jam géru gér ñay soxna jaara la ko buur sëdd ci askan tew ko boof oti sangam tax na fii tey ku di kàngam dëkke raamal soxna jaara ku xelooy wuy ci sëriñ daam ku xelooy wuy ci borom sam réew mi tey nee ñu dangay maam nee ñu kon boy soxna jaara yaa jafal lamp bi niital mi le réew yaay ki ko leeral buso yaa jar di liggéeyal jërëjëf mam soxna jaara lewet ak yaatu sawar set mën a muñ noppi amu fit jox na sangam ba cëram it sant leen mam buso jaara maami seex fat lu la may woy soxna jaara gën sunuy ndey woy nañuy bay woy nañuy ndey tey nu bindal soxna jaara ay kemam romb na leen fëx ay ndeyam jox ko cëram ndax lamu làmbool du lu ñuy wax géeju yàllaay soxna jaara julli ak góor mënu laa bu so julli ak wor mënu laa fay bu soo dooy géey yakamat ndey tolli mam yanga daa bay teewu laa doon soxna daara sàmm sag raw tax na la raw mosuloo daagu fu ñuy xaw sari xuraan yaba ngay ndaw nga ko làqoon soxna jaara jaamu yàlla wane saw tur jaaratullahi di sëpp cër dëkkandoo yàlla waxaarul ba defub mer soxna jaara li ñu koy bàkk ak màggal di ko tàgg di ko sargal taxu koy mag ne bi jaawul at ya rombul jàlla jaara jël nga say ndam file xëy dem bàyyi ñoog daa mbàkke miñ gëm sant nan yàlla ci say ndam jëre jëf maam soxna jaara sant nan yàlla bu wér ndax monu boole ki gënum ndox doomi maam jaara la may wax sukuran maam soxna jaara naata xawlul file ñaanat yàlla sun buur bi xam nat sama yéene rawi ab yat monu noo soxna jaara mahmudan ñang ibnu xaamis moo fi doon fet dali aw sas maa ngi lay ñaan lu ma xëy nos nangu ak ful bu so jaara fasalaatun wasalaamun sunu yónnen barke xaadim mi xaadimam madhu baa ngóog jëlatil maam soxna jaara asalaamaaleykum jërëjëf sëñ mu ngi wax ci biir ne ati soxna jaara li mbir yi wéy weesuwul jàlla jàlla mooy 33 adat la ci namm fanweer ak ñett kon jërëjëf duñu commentaire loolu rek lañ doon leeral dañuy jàll ci sëriñ Fadilu Kan moom moo toog nii fegoo ak nun nu jox ko moom itam mu jàllale wayam incha allah yeweeti naa aw naaru góor war koo dawal aw yoonu soññe di dàqeroy lay taaye jom yeweeti naa aw naaru góor war koy dawal aw yoonu soññe di dàqe roy lay taaye jom yow saa jigéen daw sil ma dey la fi ay njariñ yoo xam ne nii ku ca aw te day làq ndam jaaraama sun maam asta waalo ci yar bu rëy bi mu def ci sun maam jaara bam am lii mu am xam leen ne ndey dafa doon lu am solo lool ci doom ne liggéeyu ndey añu doom wolof yi la ko lim ne ñooy jigéen jàngaaniwul ndey jaadi aw royukaayamit ji la wax xarit na ca xel yi dem maam jaara ak maam wan nan yoon kii andi kii kii andi xaadim gëm maam jaara buuso de lii mu añ maam jaara buuso lii mu daj seddul ci nit noflaay taxul ba mu am ko kon lii nañ ko xam sañseek nelaw taxtil jigéen am doom jëgën tudd mbaax doyul jëm leen a roy luy ay jëfam fonkoon na alxuraan da dëkkeey durus fonkon magam ya mu nekkaloon kër ab sangam amuloon jotuk wan wàlliyaan ci kër yu mu man di doon su ma ayet kër gépp bég ngir ak doyam lu mu daa defit ba nu noddu rekk day daldi teg loolee ne cas satalaam te jàpp te jullitam am lii mu am dafa jomb nit waaye ku roy ko te tayyi woo danga am ku baax fi te am ngërëm roy soxna jaaraa tax ba sun maam anta njaay am kii di maam seex anta moom ngërëm ak dërëm roy soxna jaaraa tax ba maam xawa buuso am seex fàllulaahi mi yàlla dénk na am mu am kon saa jigéen jéem leen a aw tànkam ya ndax ku ci yàlla may doom kon mu doon fi file am mbégam kon saa jigéen jéem leen a aw tànkam ya ndax ku ci yàlla may doom kon mu doon file am mbégam tànkam ya mooy daa jàng ak dëkk jàngale toppab sangam aw ciy ndigal toog ci këram jël nay takkaay tey lee koppal di ko jël ci soow di ko jox sangam maam ba xëy am tey ngërëm bëgg ngeen di roy moo tax ba sëñ sos daaraam ju rëy maam jaara yey mokkal ci jom ne juróom ci ay téeméer la seen lim booba mat wax nan ne quinze millions di dépense weer wu am kon cinq cent mille moo di dépense bis bu set liggéeyu maam jaara ka rëy ak yaatu ndam at tayyibaatu li tayyibiin yàlla ko wax maam jaara yii buñ leen di may kuddu kun gërëm kon gaa yu baax yii nan ci fas muy tool ya gën xalsat nga cee jële meññetam ngërëm ak dërëm may lancé ab appel ci ñun suñu bii état nañ feeñ ci daara ji teñ woteel ko fi budgetam may mu man may xat mu way wilem may lancé ab appel ci ñun suñu bii état nañ feeñ ci daara ji teñ woteel ko fi budgetam may xat mu way wilemante naa jigéen ñi kon maam jaara ab royukaay la kon na ca xel yi dem yaa rabbi salli ala nabiyi muhammadin te nga dolli leer maam jaara def way wim mbégam dongaab sa doom bii fàllukan moo diw turam mooy ñaan ci képp kii mu way dëkk làqandam asalaamaaleykum macha allah sëriñ fadilu kan waxuma way wi waaye njariñ li njariñ li mu lamboo moo bari tey lu mat a dégg la te lu mat a tasaarale itam alhamdulilahi rabbil alamin macha allah du ñu commentaire ndax loolu la ñu waxoon waaye mën nañ see commentaire lu bari waaye dañuy def euh, jàll rek ci sëriñ xaadim Fall ibnul amin mu indi wayam ci chance incha allah kon euh, mahmoudou ñang ibnul xamis mën ngaa yewi ko àgg fee ca gaañ yi toog mu ngoog bismillah bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala rasulillah min bahril muqtadab waaw nga soxna Faati Bintu Loo na ñëw remplé place bi na ñëw toog soxna Faati Bintu Loo moom yaakaar naa ci moom la ñu war na jëkki sax ndax bis bi bisub soxna si la euh, na ñëw bismillah na ñëw toog sëñ bi bismillah continuel teema fopp aleer bi te xëy bay ci tooli jaara lu rëy téema fob aleer bi te xëy bay ci tooli jaara lu rëy kañ ko dell bàkk ko sulli ndamam jiwaalo ba ngay mbër mu mag ma fóore ba kàngam la jaara kay sunu ndey maami fàllu maami basak baara jaara laa mbër ma dondu maryama sangub jigéen ñi kee jara roy roy ko gaañi day taxaraw kii ku bañ ko looy joxe lay nit ku set te la ca biir dëddu lépp luy bijj ay dëddu àddina ak la ca biiram ne yàlla mooy ki ma doy foytu yàlla xam ko bu wér sax ci xencu saawi ña wey jeex ci yàlla mësti la mooy mbaa mu wàcc digle ya kay mooy ci xab sangam di ko màggal jëfam ya daa rëy rëy fonk diine dégg ko lool yaatu yewu jub ba ne coy luy lu baax mu sóobu ko luy ab safaan mu daldi ko moy naafilaak raxiibatu man doob du faat ca lenn ba di dox di sàgg nay farataam boole cay baleeka di lay xel ma naat na xol ba rafet jëf ya sell dogu ga wey dëddu gaak ya ca moom yéem na gaaña mbër la mu woy jikko yaa rafet ba du boddeeka bedde doon la ko nay tab ga yaana hitte jërëy waaru yàlla moom la di bay day yore ka yar di fanaanee taxaw di naafila ay dog yu diis te teewu ko diwaane waane fu mu joyee nga ne cëy foo ko natt rekk mu fees foofa dell moore yi may alxuraan ja moo di ca seef kaamilam ya doy na ca lay boo ñëwee ca téere ya muy géej gu feesa dell ki jay boo yëree ca waañ wa mu def kook xelam ma daa xaya xay fu ma nga bég bene siiwu xay ga sax fa moom weewey xabasa alam wa fa moom saa su nekk day gën a yey Maryama borom poroxaan yow sa tur wi daa foyo foy soxna jaara yaa rëy ndam yaa di géej gu fees aki may soxna jaara jiitu nga yaay ngën ji ndey ci yow lanu ngoy jeeg ji ay xandeer lañu yow ngay wurusu wu sell te xay jaara fóot mu rëy ma nga sumboon a tax ñu sonna di tey yow sa soqumaay li waral kenn dëbbatul ak a lay góor ñi ñoo ngi ñoqilu doy jeeg ji taal di lakk ya boy yenn saa ñu def dama daa ñeex mu fatt saf doya ilay teema jóg way fi ngeen jilin seewey ñoo ma jommalul boppam soxna jaara